depuis qu'il est parti là la maison est gaie defal ndànk sant yàlla man wax naa la wax naa la loo loo yàlla du jekk eh tu sais ay tata est parti cakagul cak ay tata est parti cakagul cak toogal toogal toogal noonu toogal toogal kamu nga na yow daal bi jekk yàlla moom mais du jekk waxtu li ngeen yëgu ko xew kon bii da ngeen leen a war a bàyyi xel te xam ci weeru koor la nekk woor ba ngoon yëndoo xit kessa sa ko ko la amal ben njariñ musiba la ak dafa am li gën a bon ci aduna moy woor ba ngoon ñu jël sa koor jox sa mbokum julit ñi seeni naw la lañ ñu kenn ma yax ngeen naan da ngeen di ngeen di cax da ngeen di cax caxagun ngeen da te gisuma ci yeen kenn dembu mu julligee bay naafile astafurlaayi ñun dul kenn ci ci yéen gi kon da am bakkaati koto bira ñun dul hmm. awa mi mi ngal di hande côté bi. loolu mooy kor goo xam ne tus doo ko ca am. te eh, xanaa yow da ngaa gumba. dama ni tëgguma ci sama bët bi ngeen julli gee wala ngeen naafila koor goo xam ne ni doo julli nag bàyyi ko soxla doon ndax doo ci am tus. tu as des problème baax na koto bira koto bira Eh, lan la góorlu. man daal. eh c'est gént bi gént bu doy waar. lan la gént. déggoo ma démb bi may yuuxu ci néeg ci guddi. ah. démb ci guddi déggoo ma bi may yuuxu ci néeg ci néegu ñoño waaw ah man dégg naa la tuuti rek maa ngi nelaw dégg naa la nga yuux tuuti rek man daal li ma gis xaw ma lu mu doon hmm. man daal li ma gis bu ma koy utal tur daal xam naa ni malaaka lay doon malaaka ndax dama ko gis mu sol lu weex tàll kii mën naa ma jëli ko jëli ko jëli ko eh, eh. ci laa tiital yuuxu na eh, waaw ci laa ko laajee lu may jëli ndax damaa mujj jéngu ndax damaa tiital ma sonn mujj gi nag ma jëngu ci kawam ni ko lu may jëli lu may jëli lu may jëli mu ni sa jabar bu ndaw bi jëli ko boo ko deful sa jabar bu ngande bi day paralysé ki si des dina dof yow di nga yàqule ci ma nit ma ni ko dinaa ko jëli dinaa ko jëli dinaa ko jëli dinaa ko jëli Burama man la yéene paralysé man yéene ma ko dama ne li ma gént malaaka bi lool la ma wax ni ma da ngay kii dof man ma yàqule da yéen wóor na leen xam ngeen sama gént du jaas li ma gént mu am man de hakkille de wallaay Burama e naluma bili bili de man la yéene paralysé yow yaa paralysé yow yaa dofu yow yaa gumbaw xam nga man xam nga man dama leen ne posé question bu soxla seen réponse ñu trouver solution uh-huh. ndax am na loo xam ne xam ci kër gi bu ñëw nga paralysé kii dof ma yàqu kër gi kër gi jeex ah, eh, ci insiste ci dëkk sonn nañ kër dëkk la ne war nga far ci mbëkk salaam. Bira. jërëjëf Cheikh. maa ngi Cheikh maa ngi Cheikh. maa ngi jàpp salaamaaleykum. Aïssata koor bul yàqu. salaamaaleykum. koor gi na ngeen def. alhamdulilah. Bira na ngeen def. sant yàlla baax na. alhamdulilah. waaye toppali. li nga ma woo yëpp yaa ko tey. yow de sa crédit yëpp xam maa ko jeexal. sama téléphone bi di sonné mel na sa popo. dama don mujj laa chargeur bi laa doon jege rek li cap li ma ci gëna naqari moy jour ba nga mujjé di mo wo ya ngi koy fàttaliku ba ngay joy mané nak na bayyi lepp lu ma naqari ma daa di ah man di joy dama don sabbat ah cappal nak da nga don joy ba nga nan ceeb bu wow lañ lay togal mané la may ñew di la togal ceeb bu nooy neex ceeb bu neex dama don sokkal dama don sokkal wax li ngay wax ah namon na la nag xaarama toog Je savais que c'est toi le grand fumier qui va amener la pile à ici. Yo, escroc, yo, macro, yo, yo, yo, yo, yo, de tous les espèces du monde. Hein? Nyame, quand ce que tu vas changer? Yen, lépp ma wax luy sa bànneex mooy sa bànneex luy sa naqar mooy sa naqar man duma la bàyyi kenn di la rey sagal nga ñun bu nu ko bëgg la ma jël ko ci biir eh, eh, laa jëm sa néeg waaw non dem bato costé <laughs> ce que xam nga lu ma la kër gii néeg bi sama néeg la heure bu ma neexee ma dem eh. heure bu ma neexee ma ñibbi jàppale néeg bi ku ko moom bu ñu tee rek solution dina am. bu wér. ndax fii ci kër gi bari na. déglul kii mooy sa kilifa déglu ko lu la wax nga def loolu mooy fu la mooy dëgg man nag Bira dama bëgg a yiwee. lu ci lu ma bëgg a dem. Mansour da ngay dem damay dem. sëñ waaw baax na baax na baax na baax na. gérer lépp rek. mën ngaa gérer lépp gérer lépp. mën nga daw ba nga defee toj wa gérer. ma ne ah. seen situation nga fi bàyyi. gérer rek yow bu bu la ci dara naqari gérer. ndaare moom bi audio. audio baax moo kenn. waaye ni ngay lakk ci pël. xam nga ne boo ma ko lakkee ci olof ma tontu la. lan ko am si boobu. ma ne kenn du ma tiim la léegi léegi kenn du ma tiim la da nga may si. néegi do néegi de. toog bi ak ci noonu la wax. léegi désormais nag léegi. désormais xool léegi léegi sax dañ koy changé nu mu ñu neexee. chaque deux mois dañuy mélange chambre ku mu nekk ku nekk fu la neex fanaan c'est tout. hey à partir d'aujourd'hui man du togg fii sax mu ndogu ngoon maa ngi dem suma néeg. voilà <laughs> voilà. ah doo togg ndogu. waaw o toggata. ñu ñëw doo togg ndogu. o defata. ah bu leen togg. o defata. o boo leen togg boo leen togg doo leen wan. Ah, ah, ay ay loqi ma ah ay ba taa ko naa naa dakale du ma. incha allah daaw doo dof nga yow dof nga. yow dof nga. togg ba mu neex jox la ñu lekk ba ñu suur te ñoom ñaar ñii duñu lekk. xam nga boo gisee ma insisté sa retour ci biir kër gi xam naa li tax daa am loo leen waxoon te la nga leen waxoon moo nekk ñoom jamono da leen raw dañoo âgé waaye yow ku la xool xam ne jamono raw raw la parce que da ngaa moderne da xam li xew. waaw léegi nag am sama néeg. cappañ hmm? sama néeg laa wax anam. jërëjëf. man bii. cappañ ah. man bee laa bëgg. na na na na mulum ci dëkk san nañ gën gi la ni war defal di na na na na ñun fa nu bëgg